tey ci waxtaanu yaxya ibnu muaz rahimahullah nee na ma arafu xabba jibaalu dunya illa min asadaqa gisuma dara luy taaral montagne àdduna benn ji benn njëmbat benn grain boo xam ne buñ ko jëmbatee mu taaral àdduna lu dul sarax allahu akbar gisuma lenn loo xam ne maa xabba tuzayyinu jibalat dunya gisuma benn njëmbët bu nit di jëmbat mu daa di màgg sax daa di màgg taaral fañ ko jëmbat lu dul sarax maanaam lim la bëgg a wax mooy gisuma benn jëf ju baax gu nit di def ci àdduna ba àdduna taaru rafet lu raw sarax loolu kon soo ko déggee yow mbokk jullit bi nanga nga ne sarax dara ëpp ko importance ci sa dund na nga ne sarax dana gënu koo rëy dara gënu koo màgg Muhammad ibnu Hibbaan rahimahullah nee na képp ku nekk sang ca jaahiliya ca ceddo ga kooku day bu duggee ci lislaam bu fekkee ba mu nekkee ca ceddo ga da daan def lu baax di tabe nee na bu duggee ci lislaam ci la war a raw lépp lam doon def lu baax ca ceet doga boobu la toxoon muy def mooy pour ñu ne diw pour ju ne sëtu diw pour ju ne nangam nangam doomu tey nag bu duggee ci lislaam li tax mu war a gën a def mooy yàllaa tax yàllaa tax nee na yaa ajabi li man yashtari al mamalik bi thaman wala yashtari al ahrar bil maaruf waay waay man de yéemu naa yéem na ma trop ci koo xam ne day jënd mamalik day jënd nguur yi di jënd lépp loo xam ne dafa am valeur ci àdduna te su koy jënd kat bi saman ci njëggu cher la koy jënd waaye nee na wala yashtari al ahrar bil maaruf mënta jënd gor ñi ci jëf ju baax baa doolay njëg lañ leen di jënde waaye gor yi ak mbaax lañ leen di jënde laa ilaha illallah étage yeeg immeuble yeeg building yi avion yeeg train yeeg bateau yi oto yi alal lañ leen di jënde waaye gor yi ak mbaax lañ leen di jënde gor yi kenn mun leen a jënd ci alal ñoom lan lañ leen mën a jënde ak mbaax allahu akbar gis ngeen ak mbaax mooy defal yàlla ak mbaax mooy joxeel yàlla ak mbaax mooy almaaruf mooy njekk abu marsad rahimahullahu taala moom nee na laa yuxtiu yowmin illa tasaddaqa fihi bi cheyin walaw kaak aw basola nee man saa yu ma xëyee danaa saraxe lu mu néew néew néew néew néew néew néew bu ma xëy saraxe mooy bis bu ma juum bis bu ma juum nag dama ciy saraxe kenn du xam lu mu toll nee na lu ma néew néew saraxe dinaa saraxe sax ab tàngal wala ab soble lu ma ñàkk ñàkk ñàkk saraxe dina saraxe ab tàngal walla ma saraxe ab soble laa ilaha illallah li yëpp pour wan la njëriñu sarax pour wan la njëriñu génn ci sa alal joxe ci yoonu yàlla tabaraka wa taala muhammad ibnul munkadir rahimahullah moom nee min mujibatil maghfira itaamul muslim bokk na li tax yàlla di jéggal jaamam bi mooy moom jaam yàlla bi muy leexle di génne ci ñaqam di jox ay mbokki jullitam ñuy lekk kon doomu ndeyu mbokki jullit li yëpp tey ci importance yi sarax importance su liggéeyal yàlla importance su jël sa alal dugal ci lislaam dugal ci toolab yàlla ñuy ñaan sunu borom borom màgg gi borom kun fa yakun jalla jalaalu wa azza kamaalu yéen jël seen alal dugal ci liggéey bi yal na yàlla tabaaraka wa taala barkeelal leen yal na yàlla fulandil leen yal na yàlla sàmm leen aar leen aar seeni njaboot ar seeni am-am yal na yàlla def ko fii misaani xasanaatikum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.